jàppoon la ci saxalka ci lundi Pentecôte lundi Pentecôte nag mooy tourner di tourner di tourner ba tombewaat ak weeru koor kon ñu ngi ci sant yàlla beneen bi ji tegu rek mooy bi yàlla dogalee Sénégal am indépendance 1960 dafa muñ fukki at muy 70 mu créer salaatu tasbiha bi wala mbokk mu saxal salaatu tasbiha bi kon dafa mel ni ñu ngi am quarante-septième année bu ñuy def salaatu tasbih mu tombeek Sénégal am cinquante-sept salaatu tasbiha boobu nag moom la ñuy waajal incha allah le 5 prochain comme ni ko gouverneur waxee le 5 juin dajeek altine moo waral tey sunu daje fii mu doon mbir moo xam ne nag ku ci laal mbaa nga xalaat ci rek lu baax yàlla dina la ko wan biir julli maa ngi ci encouragé chef de service yi nga xam ne tey ñoom ñëpp ñu ngi fi tey di leen félicité leen wax it ne xéewal la gu rëy ñu boole la ci liggéey bu mel nii yal leen ci yàlla may ndam daf leen ci courage kenn ku ci nekk li nga ci séentu yàlla na ci yàlla may lu ko kon ñu jàng fatiha jublu ci sant yàlla salaatul fatiha bi ñuy def ko àddee ci yonent bi ñuy wax yàlla li paase neex na waaye lii ñëw na ko dàq monsieur le gouverneur ni la ko daan ñaanale rek ñaanale ko préfet yi ko monsieur le maire moom mi am chance su Médinatul Munawwara salatu tasbiha ñu di ko organiser ci commune am hmm. moom itam ñu ngi ko ci ndokkeel di ko ci encouragé kon fatiha salatul fatiha donc j'insiste beaucoup daal euh, bu ngeen gisee euh, man ak préfet loolu mo xawa tax réunion bi yéex a tàmbali dañu nekkoon ci benen réunion Dakar waye dañu dog li ñu doon def fofu ñew pour organiser CRD bu buñu bari dañuy fay dal delluwaat donc moy la di won suñu suñu kilifa yi importance bi ñu accordé lii ba mënuñu ko won sax reporter fofu sëriñ bi sax ci mbaxam dem na bo xone dañu xol ndax ñu ne ko déet comme tenu du délai. Hmm. jour buñ si ñak rek. ah day répercuté si organisation. dëgg donc vraiment ñu ngi leen di ñaax bu baax ah, ngeen góorgóorlu si en tout cas ñun dañ ko càmbar dañ ko sàmm ni mu waree incha allah ba yàlla may ñu si li ñu bëgg. Ah, li ci des nag xam naa sëñ bi moo koy gën a mën a yaatal avant may jox préfet mm. sëñ bi donc ma jox la kàddu yi aleykum salaam yéen ma nuyuwaat monsieur le gouverneur li nga wax kenn mënu ci teg dara parce que am mbedd yu am tur ak pàkk yu am tur ci ngee ko wax te xaw ma te xam nga leen te meer xamu leen kon yow mbir mi dafa mel ni suñ ko bokkee yaa ci ëpp xam-xam ñu ngi lay remercier bu baax ci loolu yaa amal beneen contente dafa mel ni benn famille la benn famille moo saytu xew wi parce que koo xam ne kii booy nettali ci li ngay fàttaliku rek ngay mën a yem kon dafa mel fa nga juddoo ni président di waxee xale bu tuuti laa ñu téye ma ci loxo di ma indi ci julli gi ma di ci julli ànd ak sama yaay ak sama papa wax naa la ne bi fête bi indépendance bi amee 1960 10 ans la góor gi ne bu doon gune ma xam dal na jàng kon naa seet lan moo mën accompagner indépendance bi parce que booba kenn ku nekk ngi seet wenn wàll woo xam ne yaakaar nga ne moom nga war a teg pour mën a teg mu teg salaatu tasbih bi moo Abdou Aziz ne kii mooy assurance tout risque pour Sénégal ma xoolee cassette yi mu ngi wax naan lii dafa bokk ci li war a mën a mi ëllëg kon alhamdulilahi rabbil alamin ni nga ko waxee rek ñu ngi ko jàpp jàpp ñu ko moo jàpp boppam la 5 juin ku doon julli goo xam ne gi góor gi yaakaar na ne julli la goo xam ne gi ku ci wékk sa soxla ni nga ko waxee ci commencement duwaaw silaaxul mu'min moom la yonent bi waxoon yonent bi ne seet naa seet daal ba xam lan la arma bi gën a fort pour jullit yi waaye yàlla dee na ma ne mooy ñaan ñaan itam ñaan yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàllal loxo yàlla mu tegtal ko ko muy salaatu tasbiha bi mu ne ku ko def assuré naa la sa bàkkaar yi paase ak yi mujj ak yi nga defagul sax ku doon julli goo xam ne ki digle nañ ko ne nañ ko def benn yoon ci sa dund wala mboog nga def ko benn yoon ci at mu ne walla nga def ko benn yoon ci weer wu ne wala sax boo sawaree nga di ko def yoon ci bu kon bu nu alxaaj ibrahima saaxo jàppalee ba ñu mën am benn yoon ci at mu jóge fa nag tegi sénégal foo tourné dégg salaatu tasbih heureusement bi yonent bi diggée ne ku sos sunna bu rafet boo ko ku la ci roy di nga ci am yow kon fu ñu salaatu tasbiha am ci àddina ci sénégal en tout cas ku ko fi am maa ngi fatik fatick démb salaatu tasbih bu fa yu cheikh kanté fofu ci imam mbeng mo jëg fa dem ci beneen salaatu tasbiha boo xam ne bi ñu ko def kokki kon salat salawat tasbihaat yaa ngi wër moom lim rek la ñu joxe 300 sal euh, tasbihaat subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi ba muy 300 fois am na ñu koy organiser ci seen taxawaay boo ne allahu akbar ñuy def 15 sëgg def 15 sigi def 15 am nañ ko toftalee mat 300 bu dee ñeenti rakk ngay obligé def ko parce que kenn du naafila guddi bu dee guddi nag bul dexee def ñaar def ñaar def ñaar bul neexee ba bët set waaye bu lim bi ma tey ci trois cent jàpp ne dugg nga ci salaatu tasbih na ko yàlla nangu ak sa jàmm kenn ku ci nekk li nga xam ne moom la la fekk ci soxla moo xam wér-gu-yaram la moo xam tawat la moo xam problème la yàlla na ko yàlla balewaale surtout yéen ñi nga xam ne yéen ay yi nga xam ne kenn ku ci manqué mu feeñ leen di encouragé ci taxawaay boobu li am kontaan beneen ci El Hadj Papa moo yore comité d' organisation bi. Hmm. yàlla dafa dogal boobu ba léegi yaramam tàng. waaye dafa xëy rek ni affaire bi mënuma koo xaar. man bi mu ñëwee te yarul yet doxut di dox ak tànkam di wax dama tiit ma santaat yàlla ci beneen sant. E, léegi bi ñu nekkee la ma xalif général mu doomam taawam téléphoné ne dafa waroon a ñëw fekk si ko waaye nañ ko fi teewal mu ngi ñëw ana tànna mboolem tariqa yi ci ne sénégal te ëmb sénégal ñoom ñëpp seen i doom seen loxo ngi ci biir yàlla nañ ci dugg ak bismillah rahman rahim yàlla nañ ci génn ci alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shukran te lu rek mën nañ koo kon loolu mooy li nga xamante ni moo tënkoon CDD defoon ma fàttali nekk gouverneur ni service yëpp teewoon nañu ñi nekk fi tey nañu te am na engagement yu ñu fa jëloon ngir baaxal rek loolu rek lañuy ñuy fàttaliwaat te bu ñu fàttalee ñoom ñu dëggalaat la ñu waxoon rek foog naa ni mën nañu wax ni ñu ngi ci yoonu baax bi. dañuy njëkkee rek si si wàllu sécurité parce que ñu ngi commencé woon ci gendarmerie gendarmerie ñoom dañu waxoon ne bëgg nañu ñu yokk effectif bi nga xam ne moom la ñu amoon c'est-à-dire li ñu amoon daaw macha allah baax na waaye dañu bëgg bu mënee yokk mu gën.

ak ay barrières ñom ñu waxoon ne choqué ay corde bu baax donc vraiment defo nañ ko daaw ak gendarmerie ba mu baax lool nak la bëgg gendarmerie jàppaat ci bu baax nam meloon mu melat noonu waaw donc loolu lañu ñu identifier aussi espace yi nga xam mom lañu réserver pour parking pour nit ñi di baña garer fu leen neex ñu identifier aussi espace bo xam mom lañu réserver ambulance vendeur ambulance pour ñu baña a jaxasoog nit ñi fuñ ñu waaye it bu ñu service commerce jógee bu pour contrôler contrôle bi mën a yomb ñu xam fu ñu leen di fekk pour contrôler leen ñu sécuriser aussi ak topp aussi demu bi dara parce que dañu ràññee woon ne nee nañu euh, éditions yi doon jàll bu julli gi tasee foofu accident yi da doon bari ndax dafa jege tali bi barab bi koy defee daaw sax macha allah defoon nañ ci ay changement ba yooyu yëpp xawoon nañ ko gérer mais lu ñu gën a mën a defar mu gën a baax rek nañ ci jublu donc démobilisation bi souvent bu nit ñi tasee day am problème dëgg dëgg de circulation té fofu accident yi souvent da fay yok ndax té bo génné fi ñi julli rek yaa ngi ci kaw tali bi route nationale bi fofu tam bëgg nañu nee gendarmerie bayyi ci xel bu baax donc ci walu gendarmerie lolu lañu ñu gouverneur donc ñu jox ci fi toogal gendarmerie mu xol la gendarmerie bon prenez le micro. dañ ko dégg rek ñu ne ñëw parce que sunu baay. Allah Ibrahima Sakho jar na ko ma def toute histoire rek préfet eh, gouverneur ba ma pour une minute ci sunu bàyyi bu baax fi mu yóbbu ak fi mu département de ak fi vous Sénégal ndax umpalewu le ne man si Ngekoo Man na wax ne samay morom man dong la ci alaaj bu Sakho mos ne ndax mën naa am sa jiitu boobu ma jiituloon moo waral ma jiitu ngeen wax tey kon loolu danañ reconnaissant te lu tax ma wax ko itam eh, ngekoox ku xamoon ngekoox gouverneur fa la jànge ak ngekoox léegi ak lu fa sa tos bi bi def ñu xam ne ngekoox yokku na loolu grâce à kan grâce à Baye El Ibrahima kon yéen waa famille Sakho bés bii moomu leen ko bés bii bésu ngekoox la

kon nag les chefs de service ñun pare nañu pour ànd ak yéen accompagner leen wàllu assainissement bi comme ni ngeen ko waxee léegi daaw amoon nañu ay brouette ak ay pelle ak ay rato ak yeneen i bagages yu si àndoon defe naa service bi ko euh, joxe woon daaw sëriñ bi wax fàttali ko ban la ñan la woon non assainissement la mais am na benn service UCG yooyu aussi bu mënee ñëw ren dana baax.

léegi beneen bi ci topp mooy ci wàllu ndox mi umpale na président def na fa benn projet boo xam ne projet trois milliards la et ci ndox ñaari château d'eau yu ñuy gas la ak benn euh, forage bu mag bu mille cent mètres cubes ndox ma bu fi ak déwén incha allahu am naa yaakaar dootuñu soxla ndox mais ren jii moom noonu góorgóorlu borne fontaine sax programme naa fa ak waa SDE defe naa ne kilifa SDE bi ñëw na fii tey walla ñëwul ñëwul danañ fa programme ak parce que nga xam dem SDE ñu def fa ñaari fontaine ñëw ba site bi te incha allah dana am ñaari borne fontaine yama programme bon wàllu euh, kii nous nu mu tudd di gendarmerie sunu bi jarbaat bi fi nekk waa la moom campement la bàyyam rek mooy doomu la def naa kii boobu gouverneur wax kii sa ji nu kii nu mu tudd moo capitaine daaw Daouda kii yem la non kii bi lëg ah, Ibrahima kii sax projet yan bokkoon classe Ibrahima Faye Ibrahima Faye yan bokkoon classe moo gouverneur bi mu ñoo bokkoon classe te magi kii la muy sama jarbaat tam yaayam sama doomu nijaay kon mën nga xam ne waañ nga xaw bari wane ni fii tey lu tax yàlla def ko itam du hasard lii day wane rek ngexoo ñoo fi ne ngexoo ñoo jàpp ci bés bii tey mooy monsieur le kon sëñ Habib sa xel na daal ci côté boobu ñun pa danañ leen accompagner danañ ci ànd ak yéen ñu bokk bokkandoo defandoo ko te bés bii kat ku ci teg loxo mu dem ku ci tegul loxo mu dem kon ñu dem ni ci teg loxo mu dem parce que président teg na ci loxo te incha allahu rabbi Ngexo mu ngi yokku te alay bu saaxu tiitaru Ngexo la kon ñun bu ngeen ko téyewul sax ñun danañ ko téye te dama ne buñ fa julee jiwul sax jinn yi julee ji fa xam nga lu tax ma foofu place su jinn la woon gouverneur xam na li may wax ak xay pause gouverneur bi daawul génn guddi sax ndax ragal jinne yi nangam borom ko rek kon nga xam ne alay bi saaxu bu demee foofu fekk jinne yi jombul sax mu tuubloo fay jinne daf fay jinne daf fay jàkk ñett julli kon loolu honneur Ngekoox la dama ne ñun Ngekoox ñu ngi sant yàlla ci phase boobu ndax bu mu fay dëkk dafa ne saaku ceeb ku fi ñëw am kër ma jox la kër jox la saaku ceeb war mu ne lii ñoom mën nañu ko témoigner bu muy gor foofu dafa ne ku ñëw naa la jox saako ceeb jox la kër nit ñi ragal dëkk mais loolu la jëkkër yi kon ak alhamdulilah rabil aalamiina chef service yi maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di leen wax ne alhamdulilah rabil aalamiina sama xel dal na kon alhamdulilah ñaa ngi sant ñëpp gouverneur du ñuy yëpp. Euh, am na ñoo xam ne dañuy sàggane lu ñu xamul te nag saa su test bi ni nga ko waxee euh, lu am solo la si réew mi la. ba tax ñepp ñepp engagé aussi en cas pour ma part ci ndigalu président de la République Macky Sall ci euh, ndigalu premier ministre ci euh, ndigalu ministre intérieur jot nga seen courrier ñom ñepp liko ko président de la République si boppam. Mm-hmm. waxatuma ak ministre intérieur ak premier ministre Maître Boun Abdallah Dionne euh, ñun inshallah incha dañ mobiliser wu le préfet de Mbour sous-préfet de Sindian ñom ñepp ak ak autorités locales yi le maire. et les de service pour yàlla defa ñu li nga xam ne moom la ñu bëgg ñu ñu def ko ni ñu ni ñu ko bëggee. bu loolu weesoo di fàttali chef de service yi que li nga xam ne engagement yi jël fii temps bi gàtt na gàttaay boo xam ne euh, lépp koo xam ne am nga si tiit tiitaange ne que wala jafe-jafe na nga remonter information bi à notre ñu pour ñu ñu jëm la si jàppale.

parfois ben, ben, ça nous arrive dans certaines manifestations da y a à 48 heures M. Ah, monsieur le gouverneur man kay ba léegi nii amu feedback ba ne a boo toogee ba ba amu feedback kay li bi élément depuis débat donc j'insiste vraiment au niveau de tous les services surtout trois services en particulier je le dis toujours ce n'est pas que que yeneen service yi amuñu solo au contraire bu on amuloon solo quand on leen ki convoque fi CRD

bu si bu si topp mooy l'électricité dañ nekk si jamono boo xam ne courant ah Ndiaye dafa nekk jamono boo xam ne courant dafa dugg si suñuy dundin. Mm-hmm. lépp lu ñuy liggéey courant lay dox. Mm-hmm. donc boo amee coupure d'électricité amoon na ay jamono courant amul woon nit ñi bu ñu amee ndox am seen i kii taal seen lampe waa ba mais boobu mbooloo mi dafa tolloo woon ak loolu léegi mbooloo mi tey bu sëñ bi def fii saatu tas bi am ñu nekk Amérique bu ko seetaan. Mm-hmm. am ñu nekk yaa ngi fii rajo yi partout.

C'est synchronisation la ñu donc loolu def fait am donc maa ngi insister vraiment sur ces trois services là en particulier en insistant aussi pour tous les autres on nañu élevage on nañu fi li nga xam ne service d'hygiène ak ñeneen ñëpp am nañu sol. waaye mais ces trois services moom j'aurais bien aimé que euh, quelques jours avant en rapport avec le préfet qu'on nous fasse le point que mu wóor ñu ne amul si benn jafe-jafe loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa insister di pour qu'est-ce du sumay institution

ko su suñu yitteel suñu kilifa nag yitteel population yi suñu yitteel lay doon. donc sëñ bi si gàttal daal. loolu mooy ñoo wax di ñaan yàlla ñu dugg si bisimilah rahmaani rahim génn si alhamdulilah rabil lépp luñ si séntu luñ si bëgg yàlla defal na ko. allahumma salli ala sayyidina wa sallim. naan waaye am na ñu sant loolu ñoo xam ne ñi dañuy jël ndox mi di ko tooyal seen bopp. waaw tooyal seen bopp mais bëgg woyofal koor gi ñu ne xaaral ñu tooyal sa bopp xaaral ma tooyal sa nangam. bu dee fal di am gis nga sama boroom ñaare moom subhaanahu wa dafa bari lu mu lu mu santaane te bi muy santaane mu am dige bu mu def ca suuf pour encourager ñi mu ko sant ñu man cee dem léeg-léeg mu am lu mu tere tëkku ci suuf pour boo dawalee sa ci la mu la tëkku nga def ndànk ci li mu tere maa ngi gis sax bëkk dem rek ci ci internet ci xale yi seen facebook yi ñu ciy nett loo xam ne dafa mel ni ay alquran te dafa wax ne dañu wax ne dafa am benn waay benn góor ilimaan la ci jàkki Dakar yi euh, ilimaan yooyu nga xam ne ay doon jékki am dalu ci biir dëkk bi borom dalu woon di borom barke génn àddina soxna si dénk ko boobu am ci Dakar yu bari ustaas yu bari yu xaw a ko fi léegi ci foofu lañ jaar hmm. mu ne soxna si moo ne ci biir jàkk ji woo ilimaan di ne dama bëggoon nga dimbali ma fi laay jullee toujours mag laa xam naa nag du jong ma loolu maay bale jàkk ji maay def nangam dama bëggoon nga utal ma takkoo ci jàkk ji hmm. góor gi ne ko waaw mu sonalaat góor gi góor gi ne ko waaw ba mujj gi mu teg loxo loxoom ci góor gi am lu mu teg ci loxoom hmm. ne góor gi bu ma fàtte ci ñaan waaye nag borom kër laa bëgg te ci jàkk jee ma gënal hmm. mu seet ku mu yaakaar ne moo góor gi ñoo xaw na ñoo mën a def ci ñàkk daraja mu may ko soxna si di ko bëgg a rey ana ki ma may mu nekk dafa tukki mujj gi mu ñëw mu nekk daal bu àjjuma bu ñu xadra ba pare ñu daje jàkk jigéen ji ma wan la ki ma la may soxna si jël disposition ya, ya. yëpp mooy ñu am taraanga ya, yooyu te am wërsëg jël oto bi da ngaa def ko sol ay gañala ay mbasañ ay bu ci na fukk ak ñaar noonu jigéen def taraanga indi ka nag waaye ilimaan gisu ko bi mu duggee ba ilimaan nekk ñëwal toog ne soxna si ñëwal mu ñëw ma ko waaw kat man kat da nga naa la woon ki ma la ma ki ma naa la woon ki la may ngi nii mu xool ko ne ko kon na ma may tuuti <coughs> woo ñi mu àndal ne ko dem leen ci oto ñuy wàcc fukki mbasa ñaar fukki legos ak ñaar fukki piisu nangam ak ñaar bi di ndaw mu mu ne ko de ana 4 bi ko yebal mu ne ah, sëñ bi ci yow la kiñ may la may teranga man nga wax <laughs> yàlla daf yàlla yi mu diggee daf la ko du waaye su la ko wanoon yenn yi loolu ci àll bi dañuy fanaan di julli mboolem yi mu digg na mu ngi ci biir salaatu tasbih salaatu tasbih ci biir la ci nekk ku ko xamoon biir bés bu nekk foo ko dégg da ngay taal sa oto def ndokk nag bi ñu ko amee am ko ci àll am ko weeru koor donc maa ngi gën a ñaax ñi nga xam ne ñoo ci def xam ne yàlla digg na ci loo xam ne li neexul a Mama alaji alaaji nak saaxo nag wax ji dafay xaw a jafe ci man ndax fala tusaku anfusakum yàlla ya dafa tere ko wax ci boppam waaye mas na maa wax ne ma abib ma ne ko waaw mu ne ma boo xamoon li may fanaane guddi ba bët set mu ne ma wax nga xam dama ko jàng façon ak façon waxam daf daan monsieur le gouverneur ànd naa góor gi ci benn dakar xam nga dañu tere ko toog ci kaw ba armée ñu dugg si maa ngi ànd ak moom mu fekk armeel bi nit ñaa ngi fees dal kilifa diine yi toog ci kaw bopp armeel yi ndax la ñu màggee te taxawaay bi metti woon ñuy xaar levée de corps waaye dafa jëkk-jëkk rek ne salaamaaleykum mbooloo mi ñëpp ne waaleykum salaam mu ne bi may dugg ci armeel yi dafa am lu ma sama borom déene naa leen ko wax ñëpp attiré attention mu ne nee na bu ma ko wax ko toog ñëpp taxaw mu ne toog ci bàmmeel baaxul. parce que njàngaleem daf doon jàngale boo xam ne amul beneen ci loolu nag la ñu demandé président daanaka damay bañ a tudd montant waaye xaalis bu baree bari la ñu investir ci RTS pour mu defal góor gi reportage ci dundam ci njàngaleem ci nekkam waaye nag nekk gi comme que dafa am comme saar alxuraan sóoratu foog nga am saar wa ci topp foog nga ne bismillahi rahmaani rahim ça fait vingt-trois ans may may may dirigé julli ñaar fukki at ak ñett su fekkoon ne avio avion la dama naan daw na ba mu bëgg naaw loo deful nak ba muy bëgg naaw nga di defaat mën na yàq sa sa sa course. moo tax bu système bi ñu doon doxale mooy nii rek ñu ngi ciy toujours di gërëm bi ñu amee chance itam fii nga xam fi la ñu préfet def na ci li mu préfet su préfet sama goro la hmm. faf nañ si sàll mi jur sama sama jabar frère am mooy mooy moo kujur ko jur ñu fekkee mu gën noo engagé ci mbir gën bëgg waaw moom ku ku leen xam ñoom ak même gouverneur sax ci la bokk te alpulaar nañ leen mooñaale diine l'islam moom it ñu am cofeel ci alxaaji Ibrahima Sakho ba pare muy goro donc chef de service bi ne yëpp képp ku soxna si baabu sëñ baabu moomu ni mu mel ak sama baay ci digganteem ak sëriñ Cheikh kenn xamul nu mu toll te lépp di si sutura sëñ xaas waaw boo daan téye pàcc bu sax ay ko dégg nga beneen beneen feeñ na waaw mu ngoog cëddéem kenn ku ci nekk li la ci mboole xamuloo lan la doo xam lan la li ko Pape Diouf waxe léegi doo xam lan la bàyyi ba ñu nekkee tout tànk Pape Diouf mi xelam yëpp nekk ku yàgg bëgg Amérique la nag xelam yëpp nekk ci ut visa Amérique ak nangam nangam nangam léeg-léeg góor gi nekk doo toog fii mu ne bàyyi rek ma dem ndekete booba la mu fay jëlee moom lay moom lay xëccoo ci wërsëgam ba mo ba yor tey ku ko yor keneen ku dul yow nga yor ko moonu gën a yow xam nga ci dara donc yàlla na la yàlla jàppale waaye nga gaaw li ngay indi nga indi ko ndimbal ne na na na ci fekk loxo borom te yow yëf yi sa yëf la ah bés bi waaw bés bi bés bi toujours altine la ren nag dañu am tuuti changement monsieur le préfet comme que nit ñi dañuy jóge fu sore te di bëgg a dellu waxtu wi daan baaxoo di julli il faut ñu changer ko mooy salaatu tasbih bi dañ ko bëgg a def tout jours après bu ñu xëyee ñu ngi ci ñaan yi xam nga euh, monsieur le gouverneur xuliqal insaanu haluu'an yàlla dafa bind doomu aadama ci stress naturel boo xëyoon léegi ñu la am am 10 millions foog nga ñaan lu jàpp boo amoon tey visa am billet foog nga ne ñaanal maa ngi dugg ci avion doomu aadama moo toll foofu mais yàlla ne illal musallin nga xam ne julli moom booy julli da ngay tàggoo ko stress te ñëpp Sénégal ne ñëpp lañ toll ci stress fi mu ne boo nee déggee lu la tël rek nga gestu parce que dañ ñu tiital Sénégal li fi mu ne ni li dal ñëpp nee nañ du dal Sénégal sax waaye ñi ñi ñu ngi ragal ba tey monsieur le gouverneur ni semaine ngi nii ñoom ñoom ñu ngi ci di di di fàggu jàkk sax léegi buy julli mën nga am sax doom ci kër gi muy terroriste te doo ko xam donc comme que ñun ñu kenn xamul lañ te it phénomène bu wàccal ci àddina bi la ñu eh, di ko bàyyi xel di ci ñaaw di ci ñaan di ci ñaanlu yàlla musal nu ci ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàkka ji sax booy julli boo gisee koo miinul ci jàkka ji sax bàyyi ko xel wax naa ko imaam yi dama nekk ba ku gis ku dugg ci jàkk sax léeg nga gis ku ñëw rek fekk ñu wax rek nga daal di ne akbar daal di bëgg jël postu naka lañ koy waxee bilaal kooku na nga topp bu baax baax parce que am lu ko indi ci jàkka ji lu julli c'est avec un grand plaisir que comme vous le savez chaque année nous sacrifions au traditionnel CRD consacré à la prière de Salatul Tasbih de Ngakor euh, qui comme vous le savez est un moment très important dans la vie spirituelle et religieuse du Sénégal. Euh, cette manifestation d'ailleurs euh, reçoit euh, l'appui euh, de M. le Président Labic qui considère que c'est un événement extrêmement important. A mhm. À telle enseigne d'ailleurs qu'il nous a instruit M. le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur nous ont instruits, donc à la demande de M. le Président Labic, de veiller à ce que cette manifestation connaisse un succès, surtout que nous savons qu'au moment où cette période se, présente cette année, ce sera pendant la, période du mois de Ramadan. cela signifie qu'il y a encore beaucoup plus de contraintes. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons réuni tous les chefs de service et nous avons tenu à ce que tous les services prennent des engagements et aillent dans le sens donc, de la satisfaction des différentes doléances qui ont déjà d'ailleurs fait l'objet d'une analyse assez profonde au niveau du CDD euh, qui a été tenu par M. le préfet du département de Bourg. Nous sommes revenus sur toutes les questions. Euh, l'assainissement, la sécurité, euh, l'eau, euh, toutes les questions liées à l'organisation ont été passées en revue. J'ai tenu à insister sur trois points. Ça ne signifie pas que les autres ne, le sont pas. Ils ont tous fait l'objet vraiment de, discussions approfondies. Et à chaque fois, le comité d'organisation a pu réagir par rapport aux engagements pris par donc les, les, chefs de service avant que l'on passe au point suivant mais pour trois points en particulier, compte tenu du contexte, euh, je veux dire de la nature de l'événement, du lieu où se tient l'événement et de la période. Euh, le premier point, c'est d'abord la sécurité. De ce point de vue, la gendarmerie va prendre toutes les dispositions pour faire en sorte que cet événement soit bien couvert. On le sait tous, il y a un trafic euh, extrêmement important, c'est au bord de la route nationale. Heureusement que maintenant, avec le tour à péage, ça va désengorger un peu la zone. Parce qu'après euh, Sindia, maintenant, ça va rouler un peu plus vite. Mais aussi, nous le savons, que c'est une prière. Donc c'est un, un laps de temps très court, tout le monde se regroupe. Il y a une massification devant la mosquée, euh, donc devant le lieu de prière et au bord de la route. Donc la gendarmerie va prendre toutes ses dispositions de ce point de vue. En tout cas, ils, ont pris, ils nous ont pris des engagements dans ce sens-là et nous veillerons à ce qu'il en soit ainsi. Euh, euh, la prière euh, a lieu, elle avait habituellement lieu autour de 17h. Euh, maintenant, ils le contenu du ramadan, je pense qu'on a modifié et que ça sera fait après la prière de 14h. voilà, c'est ça qu'on a dit. Le deuxième élément, le deuxième élément, le deuxième élément qui est important pour moi, c'est l'eau. Nous savons très bien que l'eau est indispensable à la vie, mais surtout dans un lieu de culte avec une prière, donc avec toutes les, ablutions, mais surtout l'eau de boisson. Parce que c'est dans une zone, comme on le sait, qui est en dehors de la ville. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons demandé à, euh, au service général de l'hydraulique euh, d'augmenter le nombre de citernes qui étaient prévues. Il était prévu habituellement deux citernes, trois citernes avec des bâches d'eau qui souvent se sont révélées inutilisées. Donc on a demandé que ce soit euh, donc, transformé en citernes à d'eau qui permettront d'alimenter correctement les populations. Le troisième élément qui est important, compte tenu de l'environnement général, des technologies, des appareils, tout ça, c'est l'électricité. Nous avons instruit aussi, de ce point de la Sénélec, de mettre en place euh, tout, le dispositif. Il faut dire que le comité d'organisation est relativement satisfait des prestations qui ont toujours été faites par la Sénélec. Donc nous avons demandé de continuer dans la même lancée et de veiller à ce que euh, de ce point de vue que toutes les attentes soient satisfaites. Maintenant, pour tous les autres points, pour tous les autres points, euh, l'assainissement, euh, la santé, l'élevage, le service de commerce, tous ces services viendront véritablement entrer en jeu et, seront en rapport avec le préfet, en rapport avec nous-mêmes et sous la direction de M. ministre de l'Intérieur, verront à ce que la manifestation connaisse un succès. Oui. Ah, nous sommes à la 47e édition donc de, cette manifestation-là. Uh-huh. Comment Comment les raisons d'être. Mais ça, le marabout reviendra dessus. Vous avez participé en même temps que nous au CRD. Hein. Je ne veux pas rentrer dans l'aspect spirituel. C'est une manifestation religieuse importante qui se tient depuis 47 ans. J'ai eu le privilège, moi, gouverneur, qui vous parle, d'avoir participé à la première édition, déjà uh-huh. parce que j'étais jeune élève dans cette zone-là en 1970. Alors j'étais là Donc depuis lors, euh, la manifestation se tient et jusqu'au moment où je vous parle. Donc Seigneur Seigne Habib qui est là et l'ensemble des de, collaborateurs reviendront plus largement sur les aspects spirituels et toutes toutes les attentes. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ils ont le, euh, Seigneur Abib Sahra l'a dit tantôt, la RTS comme les autres organes euh, ont été invités à, se rapprocher de la famille pour mieux d'ailleurs euh, vulgariser et faire une bonne couverture. Je mm. pense qu'il y a déjà des avancées qui sont faites par certains organes tels que la RTS. Et nous avons tout le monde à veiller à faire davantage connaître euh, ce, euh, ce grand marabout, ce grand érudit. J'ai un ami qui l'appelait ce maître de conférence. Mm-hmm. Il me disait, un maître de conférence, véritablement, c'est al Ibrahim Sakho. Mhm. Quand il commence une, une conférence, si vous êtes dans la salle, vous ne risquez pas de quitter tant qu'il n'a pas fini. Il avait toutes les techniques, il avait toutes les possibilités, avec une très forte pédagogie, avec une connaissance extrêmement importante du monde, du contexte, des lieux, une réactivité par rapport à son environnement qui fait que son discours était toujours très, très bien reçu. Donc voilà ce que je peux dire. Le reste, je pense que le comité vous en reparlera. Merci. Merci beaucoup. CRD bi ñu di def at mu jot def ci gouverneur di dundal ak di fàttali li nga xam mom lañu la ci kër préfet jaar nañ ci adjoint préfet mu def lim mu ci war ci ndigalu président de la république ñu wëlbati dem ci préfet ci Mbour ndax fa la xew-xew bi amé mu def ci li mu ci xalaat ñu ñëw nag ci loxoy gouverneur mu sottal loola loolu moo doon tànk yi tànk yi nag jaadu na parce que bi ñu amee indépendance 1960 ba am fukki at la Ibou Sakho ci xalaatam ne fokk ma am loo xam ne dina nekk contribution diine te day doon contribution boo xam ne ci gémmañu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lay doon nga xam ne kenn du ko mën a contesté lépp lu fi jigoon lu fi jiboon ci réew mi di xew-xew te nuroog lii jib nii lépp contesté nañ leen ba mu des salaatu tasbih fan yële passé am na ku ci doon wax waaye mujj na baalu senegal yëpp génn ay raison yu taxoon muy wax yeneen yu dëppoowul ak ki mag ñi bindoon fa am téere yoo xam ne mag ñeek bind fii ak yoo xam ne naar yeek ko bind ak yoo xam ne àddina bi yëpp ci bokk d'accord ba mu mel ni alxuraan boobu nag julli gi bokk na ci salaatu tasbih bi ba tax na yàlla def na sutura bi ñuy paree indépendance mu def commencé ko moom 1970 ba tey Papa Abdoul Aziz nag moo waxoon ne lii assurance tout risque la pour Sénégal bare na yu baree baree bare yu fi am ci ay xéewal te nii la Alaaji bu saax nag am na bés ñu toog ca ngee ko wax mu jékkee-jékk ne ma ab yi ma ne amu ah, ne xanaa xamoo ne réew mi nañu bàyyi di wax pétrole amu fi pétrole a nga fi am ma ne ah, mu ne ñu toog ngee ko mu ne fii na ngeen ko fonk gis nga fii du yàgg avion dina naaw di tim fii mboolem yooyu mu doon wax yëpp nag nga xam ne circonstance la ko daan waxee gis na ko donc kon ñu ngi jëkk ci gërëm gi gërëm RTS bi nga xam ne am na xalaat dellu siwaat fàttali nit ñi ndax àddina bi kat ko fi noppi ci sa maam ñu fàtte ko mu dellu siwaat ci mbiri Alxaaj Ibrahima Sakho ñu fésal ko àddina bi ñu gën ko xam sant ko gërëm ko di sant RTS di sant réew yëpp di sant gouverneur di sant lépp loolu daal moo doon taxawaay bi nga xam ne moo fi indiwaat ren yàlla nañ fi indi at yu bare bare bare ñaan gi itam ku ñëw ak ku ñëwul ku ko fekke ku ko dégg ku ko déggul Sénégal gépp yàlla na fi yàlla dolli jàmm ñu ngi toll ci jamono yi ko waxtaanal bu la xamul sax bu la xoolee tiit jamono yi tiit la ñu nekk ah xuliqal insaanu halu'an wax naa ko léegi ida masahu charru jazuan wa ida masahu xayru manu'an góor gi créé na julli goo xam ne gi dina tàq bépp ragal ci àddina yàlla na yàlla musal Sénégal yàlla na ko yàlla aar waaye ñu ngi beral ngërëm nag président de la république hmm. en tant que doom mu ren dafa am yu fa bees yu bare bare chantier yu bare nga fay taxaw ni mu ko defee ci këru diine yëpp sak la bu rëy waaye njariñ lu rëy la te nag moo jëkkeew ko ndax moom moo wax ne waa waajuram dañ daan téye ci loxoom di ko indi ci julli comme ni ko gouverneur waxee léegi ñu ngi sant yàlla ku fa indaale mébal ku ne yàlla na ko yàlla faj mu ngi fa taxawal sànc yaakaar naa ne di kenn dootu fa soxlaati duus kenn du soxla foo nekk kenn du soxla foo toog lu dul mbokk borom kër gi dafa waxoon ne bu ñu fi nekkee ba ngoon julli ba ngoon nañ julli jël te dem kenn du fa dëkk kenn du fa fanaan kenn du fa def daal noonu la ko bëggee te moo xam lan moo tax mu def ko allahumma salli ala ñu ngi tollu ci 47 ñeent fukk ak juróom-ñaar wax naa leen ne 1960 la ñu am indépendance fukki at après la ko tam commencé mais ñeent fukk ak juróom-ñaar yàlla dogal na ci baaxam mu ngi fi jóge 1994 94 ba mu fi jógee ba léegi nag maa koy doxal maak samay rak ñu déggal ma nag jàppale ma topp ci sama gannaaw ñu di ko doxal ba tey jii réussite bi ci am ba àddina bi yëpp Indonésie jot nañ fi ay télégramme jot nañu ay kilifa diine yu bari Nigéria Niger ñëpp di wax ne dina ñëw ànd si julli si yàlla na nekk sunu muur ñun ñëpp ci barke yonente bi saaw salaam heure bi itam dina changer ren ndax dafa dajeek weeru koor xam naa kuy ñaan ba tombeek weeru koor góor gi daan na wax ne yàlla bu bëggee sakk wala bu bëggee suturaal doomu soxna xam nga nu koy defal ma ne ko déedéet mu ne dëkki koo ñaan loolu mu nangu ba pare yàlla dogal na bu yàgg ne salaatu tasbiha bu amee ci réew mi ki mu ne foo dem ci réew mi ñu ngi koy def ndokk nag bi yonent bi waxee ne boo boo boo yëkkatee sunna Ibou Sakho jëkk xamlewul salaatu tasbih salaatu tasbih yonentu bee ko xamle woon joxoon ko baayam Abbas waaye laajoon na Abbas xeeroon na ba ne yonent bi ndax julli gi pour man kenn la mu nekk pour yàq xeet wi yépp génération bu mën a ñëw bu ne te def salaatu tasbiha bi dina am li ñu digg ci salaatu tasbiha bi donc dañu ne ren comme que dafay dajeeg weeru koor te kuy ñaan ba mu dajeeg weeru koor ba yoboo rafet njor ñoo ne kon nañu ko def tisbaar ndax koor gi dafay metti bu ñu sëlmalee tisbaar rek enchaîné salaatu tasbiha bi mu konti yàlla def na sutura man na am na mu daan demee lay demee ñu ngi ñaanal sunu maam jooju Omar Sakho moo ko daan jiite daaw dafa amoon tuuti ngànt waaye dellu si na ni comité d'organisation bi itam ni ñu dellusee ku ci feebar ko ne yàlla na yàlla dellusiwaat nga jëlaat sa place gouverneur yàlla na yàlla bette ay galaate ki xayma defal ko préfet defal ko président de la république yàlla defal ko mucc ak ak wér gu yaram ak xol bu gën a yaatu ak muñ defal ka njabootam ki rakkam ak ki bokkam ak ñëpp ñun ci boobu la ñu dañu waxoon daaw ne rus nañu président di am projet te projet ba àggul ñu ngi ñaan ci PC e bi di ñaan ci yeneen yi di ñaan nag ñeneen ñi ci des ñëpp yal na yàlla def ci seen xol xolu muñ ak xolu muñal ak xol yu jàppale ñu nekk benn ñun ñëpp Sénégal yëkkatindoo dóorandoo góor gi def naa xam ne léppi ñëpp xajul ci lenn kenn léppi ñëpp xajul ci lenn kenn ñun Sénégal lépp ñoo ko moom xajul ci pexe koo xam ne kii boo ko toppee bala ngaa sori sax yëg ne dëkkul Sénégal yàlla na yàlla defal sutura allahumma salli ala sayyidina Muhammad